Mhm. dans la gestion des vestiaires et dans la gestion de, l'émotion. Mhm. émotion bi am. Ah. football. Mhm. ne ay Côte d'Ivoire ngeen. ñaax ci côté ensuite ci choix dafa choix fort Manam bu mu ni li fi dama koy te mais daf ko parce que titularisation Gradel. ak série nga jël ku mel caissier ko ko mhm. il faut nga am fit trop pour mun mais aussi il faut nga xam Côte d'Ivoire trop pour mun ko mhm. donc moom ressort avantage c'est un fils du pays xam les données socio-culturelles fa la màggee xam na lan mooy ivoirien du ko jàngal la gasier bi nga pour s'adapter mhm. donc nous, moom nag ba xam ne ak lii moom a de manière intelligente et dafa def de telle sorte que joueurs yep dañu impliqué wu ñëpp dañu adhérer à son projet mhm. ça veut dire que isolé wul et il a pris les cadres ku ci nek dafa la wax jox cieur bi nga mom mais bo waree génn da ngay génn so waree dugg da ngay dugg finalement ñom dañu dem ba xamni euh, l'entraîneur il est là pour mettre tout le monde au service de la nation donc fédération bobu mu indi autour de la nation Nélène, c'est la nation qui est importante mhm. ensuite dañu am devoir de de de de laver l'affront affront premier tour bi dafa mm-hmm. baye ay séquelles. ah oui mm-hmm. et la preuve bo xolé ñom buñu ñu jubilé joueur Côte d'Ivoire surtout caissier. Mm-hmm. signe bi muy def signe de respect. Nous dafa am dafa am solo fay toj pour wan la on s'excuse et on est fier d'être ivoirien ah yoy c'est des messages yo dans le gestes, da koy analyser nga xamni ni amna luñuy def bo Fofana quand il est dehors si l'équipe marque moom mooy jubilé que nous devons jouer et pourtant c'est un très grand joueur mais tu sens l'implication de tout le monde, du banc, de, l'environnement, donc des vestiaires. je pense que nous a fait un coaching extraordinaire. Et aujourd'hui, comme Nico Coach je pense que compétence, compétence. Mhm. Il y a un moment dans l'histoire, oh. euh, jour, un ancien premier ministre, moi, ça une déclaration, ça m'avait fait très mal. Mhm. L'équipe du Sénégal, mon équipe du Sénégal, c'est des professionnels, ils doivent être entraînés par des professionnels. Voilà, pour ne pas le nommer. Et puis, non, mais Diallo sax ci kii bi. voilà voilà et bi mu waxee loolu. ne ne ne dañ leen war a entraîner par des professionnels lan la bëggoon wax mooy doomu Sénégal. warul entraîner amuñu capacité entraîner. instant boobu dafa ma metti mais quand Aliou Cissé est venu bi mu ñëwee. waaw Aliou Cissé daf ñu fajal suñu mer. MS Faye dafa fajal mer boobu. Mhm. Belmadi dafa faut mer boobu mhm. donc pour vous dire que compétence amul couleur on peut aller chercher un entraîneur étranger mais bu mu tax nga xeeb say doomu et puis dañ ko et puis euh, excuse-moi dingo ko dingo ko quoi c'est-à-dire que ñu nommé ko intérimaire ñu ne ko donc encore là en même temps nous ñuy négocier avec Ronaldo négocier ça fait mal voilà ça c'est très mal donc moi tax moom gis nga donne yo données le donne la doon coaché waale mm-hmm. xam nga am na li nga xam koy denc ko mais ci biir ni ngoy liggéeyee pas-pas bi nga ciy def volonté bi nga ciy def ak envie bi nga ciy def moom ngay transmettre ah joueurs yi moom envie boobu la transmettre jour yi mhm. jour yi transmettre ko delloo ko ko sur le terrain mhm, mhm. et finalement boo xoolee ci gestion des effectifs ak gestion des des temps de jeu bi c'est très important li coach salaman waxoon parce que en fait la fraîcheur physique compétition bu mag bu mel nii fin ba dafay fay effectivement et boo xoolee nigeria loolu émoussé leen parce que ça onze bougé wul lu et que lañ donne am fraîcheur physique pour mën faire def yenn action yi finalement doto ko mën et même dans la motricité fine liñuy la motricité de précision mm-hmm. quand tu es fatigué doto am justesse dans les passes justesse dans les choix justesse dans la réflexion parce que tu es fatigué amoto carburant physique bu lay permettre nga ses ajuster say choix selon le moment mm-hmm. donc loolu dafa feeñ alors que Côte d'Ivoire dañ doon changé dañ doon tourner deuxième phase bi boo équipe bi da doon tourner mm-hmm. ku da ngay jouer moment nga génn de me récupérer vite et tu reviens. plus notre l'envie avec la gestion de faillite, finalement la Côte d'Ivoire mérite largement. sa ah oui elle mérite ça alors Nidel Kitilinbi, ki ci ligne bi pose dellu question allo. Euh, bonjour. oui bonjour.